ki ne ko Aliyu soo amee gan muy ab seet ngay fab sa loxo teg ca bopp ba jàng kursi yu jàng yaasin teg ca xulu wallaahu ahad yetti yoon dal di wax ñaan gi ne suñ boroom sama gan gii day yaanu bokk moom yaay sunu boroom dama lay ñaan nag nga defal nu ak déggoo suñ diggante ndax yow lépp nga mën maa ngi lay ñaanit nga wërsëgale ma ci moom wërsëgu yaatoo yaatu mel ni ay doom yu baax yu bari te barkeel ndax yow lépp nga mën tawfiq xale nu xamal nu na nga bëgg ko jaamoo ban jaamoo la noona te nga jéggal nu yërëm nu ndax yow ab jéggalikat nga ku bari yërmaane nga del ne ko àll yu boo joteeg sa soxna bul fàttee wax bismillahi rahmaani rahim ndax su fekkee waxoo ko seytaane da ca daal di dugg am cëb cër boo bëggee daal njaboot gay soqikoo ci soxna sa seytaan du ci am ab cër da ngay fexe ba wax bismillahi rahmaani rahim booy bëgg a moom bañ koo fàtte ndax muy alal muy doom buñ ca fàttee tudd turu yàlla rek seytaan dal ci am aw yoon ne ko Aliou boo joteeg sa soxna bul xool sawukaay ba ndax mën naa am loolu tax bu ngeen amee doom doom ja gumba maanaam bañ a àndaale ab gis ba tey boo joteeg sa soxna bul di wax ndax loola mën naa tax bu yàlla dogalee ngeen am doom doom jë muwu ne ko it boo jotee sa soxna bu mu sukk bu ay loxoom mel ne borom ñeenti tànk ngay jotee moom ca noona ndax loolu jëf yi mbaam yi la mbaam yi ñooy jëfe jëf ñaaw woowu faa idatun lii njariñ la uxra baneen wa takkutubu da nga bind isa zulzilatil ardu silzalaha ila axiri suura ba ci mujjug saar wa lil marati ñeel jigéen ja daati talxi ka boroomu mat ka ci mat wa yuktabu def na bind xablaha ci njëkk saaru isa sulsilati ida samaau nshaqat ila qawlihi ba ci waxi boroom bi wa alqat ma fiha wa taxallat wa baadahuma daañu bind ca seen gannaaw wala dat xànnatu maryama wa wala dat maryamu xiisa uxruj yaa waladu adduxuuka yaa waladu tukk tabu def na ko bind fi qadaxin ci ndab wayu rashu te dees wis bi xaa ca moom batnul marati biir jigéen ja wa waccuhaa ak kanamam fa innaha moom tabaxu dana mucc mooy dana am doom xaajilan fi saasay saasa bi salaamatin ànd mucc mu ne lii beneen njariñ la bu jigéen tolloo ci yëg aw mat di bëgg am doom dañuy bind ahoudu billahi min asheytaan rajim teg ca bismillahi irrahmani rahim teg ca ida samaun shaqat ba ci wa alqat ma fiha wa taxallat daal di bind nag suratu zilzaali ba saar wa mat teg ca waladat xannatu maryam wa waladat maryamu xiisa uxruj yaa waladu adhuuka yaa walad loolu lañuy bind ci palaat raxas ko dal cee wis kanamu jigéen ja ak biiram kanam gi nag kanam gi dëgg-dëgg gi ànd moom lañuy wax moom lañ cee wis ak biiram fi saasa saasa dana daal di am doom ànd ak mucc dara du ko dal incha allah faidatu li njëriñ la fi zikri maanal fatihati ci tudd wala qad aataynaaka jox la sabaxan juróom-ñaar minal masaani te mooy fatiha wa sumiyat tuddeef na ko almataniya masaniya li annaha ngir naka moom tuutaan naa def na ko ñaareel fi kulli salaatin ci gépp julli mu ne lii beneen njariñ la boo xam daa aju ci faatixatul kitaab loolu ci njëkk wax mooy lu tax ñu koy tudde almataani mu ne julli mënta yées ñaari ràkka te ràkka bu ne dana am fatiha xam ne kon julli gu ne lu néew néew daañ ci jàng fatiha yaari yoon moo tax ñu koy tudde almataani xanaa benn rakkab wetar wetar rek de mooy julli goo xam ne matul ñaar te fatiha benn yoon lañ ko cay jàng waalam xamal ne ànnal fatihata naka fatiha mustamilatun aji làmboo la ala sabi ayatin ci juróom-ñaari laaya naafiyatin yu doy dàq li abwaabi jahannama ñeel bunti jahannam alhamdu lillahi rabbil alamin nafat dàq na alhaawiyata sawra wu tudd alhaawiya summiyat tuddeef na alhaawiyatu haawiya haawiyatan aji xawe ko li annaha ngir naka moom tax wi dana xaweeku bi ahliha ànd ak ñoñam maanaam ñu nekk ci biiram sabaxiina juróom-ñaar fukk xarifan ci at arrahman arrahim nafat dàq na aljahima sawara wa tudd jahim maliki nafat dàq na assaira sawara wa tudd assair iyaaka naabudu wa iyaaka nastain nafat dàq na saqara sawaraw saqara ihdina siraatal mustaqim nafat dàq na alxutamata sawaraw tudd alxutama siraatal lazina anamta alayhim nafat dàq na laza sawaraw tudd laza xayril maxdubi alayhim wala daalliin nafat dàq na jahannama sawaraw jahannam almuaddata wa di ñu xaroo li ahlil kabaayiri ñeel ñuñ bàkkaar yu màgg ya min ummati muhammadin ci xeetu muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam allasina nga xam ni amano gëmoon nañu walam ya tooboo te tuubuñu mu ne nag xamal ne fatiha juróom-yaari laaya moo ci nekk sawara itam ab limam juróom-ñaar la àjjana moo doon juróom-ñett waaye sawara juróom-ñaar la juróom-ñaari laay yi nag day tax a mucc ci juróom-ñaari sawara yooyu ndax alhamdulilahi rabbil alamin mi nga xam ne moo njëkk ci fatiha day tax a mucc ci sawaraw alhaawiya alhaawiya day firi aji xawe ko ndax day xawe ko ngi nekk ci biiram jëm ca suuf lu toll ci juróom-ñaari fukki at lépp mu di ko xawiku ànd ak ñu nekk ca biiram moo tax ñu tuddee ko xaawiya arrahman arrahim day musle ci sawaraw jahim maliki yawmiddin day musle ci sawaraw sair iyaaka na abudu wa iyaaka na sayin day musle ci sawaraw yu tudd saqar ihdina siraatal mustaqim day musle ci sawaraw tudd alxotama siraatal lazina an'amta alayhim tey musle ci sawar wa tudd zaza xayril maxdubi alayhim wala daalin tey musle ci sawara yi nga xam ne min nañ turam muy jahannam te ñu wax ne ku bokk ci xeetu yonante bi sàggan ba faatuwaale bàkkaar yu réeree tubb ko te yàlla jéggalu ko boole ca ku bokk ci yonante bi te sàggan ba def noonu moom la ñuy yóbbu jahannam mu ne nag laay ju mujj ci faatiha day musle ci jahannam moomu waa alam xamal ne ànnal faatihata naka faatiha mustamilatun aji làmboo la xalaa sabahi ayatin ci juróom-yaari laaya arbahun yent min haa ci ñoom sanaa un tagg ci yàlla taxalaa kawe na bil majdi ci tedd nga wasalaatu ñett min haa ci ñoom du haa un ñaan la awalu sanaa aj njëkki tagg mooy alhamdu lillahi alamin alhamdu alhamdu huwa moom almadhu mooy tagg wa bi kulli kamaalin ci géppuk mat wala yastaxiquhu te du ko yeyoo alal xaqiqati ci dëgg-dëgg xayrullahi ndara yàlla rabbil alamina kay borom bindéef yi rabbil alamin jooju nag huwa moom rabbuhum mooy seen buur wa sayyiduhum tey seen sang wa maalikuhum tey seen aji moom wa xaaliquhum tey seen aji sàkk mooy leen bind wa raasiquhum tey seen aji warsagal wa muslihu ahwaalihim tey aji yéwénal seeni mbir xaalan ci teew mi teew wa ma ak ci ëllëg fadlan muy ngëleel rek min hu lu ci moom de laawu jóoban du waru gar àll yi ci kawam mu ne faatiha juróom-yaari laaya la yent laay yi nga njëkk a jot yépp day tagg rek yàlla sunu boroom yett yi ci mujj nag ak ñaan moo ci nekk fi mu tàmbalee di alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu xeeti cant alhamdu nee mooy tagg jëmm ci nekku ko amee nga lépp luy xeetu mat nga xam ne ak mat dara rawu ca te dara ci manqué laalu la loolu nag nee na yàlla rek moo ko yeyoo kenn yeyowu ko yàlla nag mooy buuru mbindeef yi mooy moo leen sàkk moom leen di leen toppatoo nga xam ne moo amee seen wërsëg lépp lu aju ci ñoom rek di baaxal seeni mbir rek moo koy def ci mbaax ma ngëneelam nde dara waru ko ca arrahman nag ahammu moo gën a matale mutaallaqan ci ab ajukaay wa axassu te moo gën a jagoo lafzan ci baat maanaa ahammu mutaallaqan maanaam ahammu mutaallaqan mooy mawlaanaa sunu boroom rahmatuhu yërmandeem ji ahammatun aji matale la xalal mu'minina ci way gëm ñi wal ak way weddi fi duniyaa ci àdduna wa maxnaa axassu lafzan maanaam axassu lafzan xaasatun aji jagoo la bismihi ci aw moom rek idi ngir laa yu sama deful tudde arrahmaanu rahmaan illaa huwa ndare moom arrahim nag aam moo gën a matale lafzan ci baat wa axassu te moo gën a jagoo mutaallaqan ci ab ajukaay maanaa ahammu lafzan maanaam ahammu lafzan mooy xaamatun aji matale la xalas mi ci aw turam wasmir ruxamaa yi ak turu way bari ñu yërmande min ibaadi yi ci ay jaamam maanaa axassu mutaallaqan mooy moolaanaa sunu boroom raxmatuhu yërmandeem ji xaasatun aji jagoo la bi ibaadihi ci jaamam ña almuminina ñu dangay gëm fil axirati ci alaxira duunal kaafirin ci lu dul way weddi ña bu agsee ci arrahman arrahim mu ne arrahman dañ koy firee yàlla muy xéewli xéewal yu dijj yi maanaam xéewali àdduna yi nga xam ne dafa matale ña gëm ak nag ñu koy firee yàlla mi xéewali xéewali sew yi jublu ci xéewali alaaxira ya nga xam ne da koo jagleel ñu gëmoon rek mu ne boo delloo ñaari baat ñooñu arrahman muy gën a yaatu maxnaa waaye nag bu dee ci wàllu baat bi moo ci gën a xat lim gën a yaatoo ci maxnaa mooy arrahman mooy yàlla mu yërëm waa àdduna sépp nga xam ne yërmandeem ci àdduna dafa matale ña gëm ak ña weddi kon loolu la gën a yaatoo ci maxnaam yi li tax baat bi gën xat nag mooy arrahman yàlla képp lañ koy tuddee arrahman duñ ko tuddee kenn ci jaami yàlla yi yàlla rek la ñuy wax arrahman loolu moo tax nag baat bi moom xat te maxnaama yaatu safaan ba nag mooy arrahim arrahim moom maxnaa ba ci boppam moo xat waaye baat bi dafa yaatu li tax maxnaa mi xat mooy dañ koo jagleel yërmande yi te ñu gëmoon rek la ko yàlla yi féetale looloo tax maxnaa ma xat li tax nag baat bi yaatu mooy arrahim turu yàlla waaye daañ ko wax itam keneen ci jaam yàlla yi ku bari yërmaande yonent bi sax suñ boroom melal na ko ci arrahim ba mu ne raufur rahim jam wax ca laqad jaakum rahim jooje ma nga dellu ci yonent bi nga xam ne arrahim tur yàlla waaye dees na ko dudde di ko jëmale ci keneen ci ay mbindeefam loolu moo tax ñu ne arrahim moom maxnaama moo gën a xat baat baa gën a yaatu ndax du yàlla rekk moo tudd rahim daañu fekk mbindeef ñu wax ko rahim maliki yow mi diin moo ci topp mooy ante yow almaliku yaa aju moom lil yow mi ñeel bis ba ëllësi ba nga xam ne laa yeen faxu du jariñ fii ci moom illa diinu ndari diine ju sell waxuma moom yowmul axirati mooy bisu alaxira iyaaka na abudu ay lakka ngir yow rekk ngir yow rekk na abudu la ñuy jaamu wa iyaaka te yow rek nastaayinu la ñuy sàkkoo dimbandikoo ay natlub la ñu sàkku min ko ci yow dong alxaw na ndimbal waxuma te moom xalxul qudrati mooy bindal kàttan xalat taaxati ci topp wal xismati ak dundal ak mucc minal maasiyati ci mooy al iltixaafi ak sàkkal jaam bi ak làmbaayoo bi amati ci xéewal wa rifqi ak ak ñëwante fil xayaati ci dund ga wa baadal mamaati ak ci gannaaw faatu ga wal ak gindee ga lil imaani jëm ci gëm wa tawfiqi ak dëppale ga li taaxatu jëm ci topp ba asee ci laaya bi maliki yawmi diin am na ñuy jàng maliki yawmi diin yàlla mi aji moom bis am ñuy jàng ci wars maliki yawmi diin buurub bis yàlla moom bis yépp moom rek it mooy buur saa ne waaye nag bis moom ngam ko moom ak doon nga mu doon buur moom rek day gën a leere ci bis penc boobee nga xam ne kenn du fa woote ak nguur kenn du fa woote moom dara moom rek ak moomeelam ak nguuram moo fay fis moo fay feeñ iyaaka na bu wa iyaaka na sayinu mu yàlla yow rek de yoo mu jaamu la amul kenn ku yeyoo ku ko jaamu ku may yow yow képp it yaa am ndimbal ku koy sàkku it yow dong la ko war a sàkku kon nag kuy sàkku na sàkku ci yow nga dimbale ko ci sori ak mooy rafetal ak topp sàkku ci yow it nga dimbale ko musal ko ci musiba te sottul ko xéewal ñewante ko yërëm ko ci bim tolloo ci dund ak gannaaw dund gi muy faatu saxal ko ci daal la nga xam ne moom mooy tax a mucc tey ëllëg muy gëm gu sell ak topp yàlla gu sell yooyu daal ci yow rekk lañ koy sàkku yaa ci mën a dimbali sab jaam ndax yow rekk yaa amee ndimbal ihdina siraata al mustaqim ihdina yàlla na nga nu gindi as siraata yoon wa al mustaqima way aji jub xocc ay li ci namm wafiq naa yàlla na nga nu tawfiqal maxa siraati nu ànd ak yoon wa al mustaqim way aji jub allësi wa nga xam ne laa waja laa waja déetu dëng fii muy nekk ca moom wala xiraafa du caageenu ak jàdd nga ne wala xiraafa du caagin ak jeng mook xiwa ja ñoo bokk max naa ka tariqil xilmi ni yoonu xam-xam wal huda ak jub laa tariqal jëhli du caaginu yoonu réer wal hawa ak bànneex li qawlihi taala wa anna haza naka lii siraat yi mooy sama yoon mustaqiman mbir moom di aji jub fattabiuhu topp leen ko bimtisaalil awaamiri ci topp ndigal ya wajitinaa bi nawaahi ak moytu tere ya wala tattabihotu bu leen topp asubula siliya waxee ñoom ak turraxaatu moo di siliya ay la mu ci namm ak turuqa yoon ya ashaadata yi aji sil mooy yee jàdd wala xaasilu la am dëgg-dëgg mooy am naka naka yow ida salakta ndéem soobu nga alfajja yoon wa alxamiqa way aji xóot lay firi waaye dañ caa jublu way aji leer naa ñetti jub xocc way ji tanabta te nga moytu am maa si wax walis lu bokkut ak moom mi maa ci lépp loo xam ne kaana am na min turahaati tarixi ci seli yoon wa talxaakoon da nga taseeg rabbaka sa boroom wa anta te yow naajul aji nga min xazaabin xariqi ci mbugaluk lakk ga wa in xaalaf na dem jiwoo ngaak al amra ndigal la wala xaatati nga tàbbi fii tilkat turrahaati ci yooyu seen waqata nga tàbbi fil xalaaki ci alkande li ànd kulla tarixin ngir naka lépp yoon alayha nekk na ci moom seytaanum seytaane jaalun si ajréer moom dëllum si ajréeral ka tariqi ahlil hawa mel na yoonu ñooñ bànneex wal bidahi ak bidaa waaw see ci ihdina siraatal mustaqim mooy yàlla may ma ma aw ci sa yoon wi nga xam ne moo jub xocc ku ci awti wàcc ko àgg ci sa ngërëm yàlla nga nu gindi awale ci yoon woowu ndax su ndoroom dane dama amee yoon wu leer nañ woo xam ne ku ci aw gëm ba noppi sax ci jëfe ndigal bàyyi tere mooy yoon woowu ku ci aw nag ak si ci man ma gërëm la tàbbal la ci këru teraanga ga mu teg ca na ngeen moytu aw ci yooni seliya maanaam yoon yu ndaw ndawaan yi nga xam ne ñoo jàdde ci yoonu mag wi soqi koo ca yee jëm fee yee jëm fee yee jëm yooyu moom ku ci aw sànku nga te boo tuut fa ngay mujj ji rek mooy ci kërug safaan ba muy sawara mu nekkoon ci gàttal rekk ku aw ci yoon wi leer wi nañ moytu lépp luy xeetu sël wajaat yoon wu mag wi danga àgg ak jàmm taseeg sa boroom mu gërëm la musal la tàbbal la àjjana ku topp sel yooyee nag sel wu ne daa am saytaani soo xam ne moo ca nekk di ca woote sànku tey sànke réer tey réeral ku aw ci sel yooyee nag woo ca aw rek seytaane sa ca nekk di la wommat di la wommat xam ne bu la yàlla dabaatul ci yërmandeem yaa ngi ànd ak seytaani soosee daanu ci kërug safaan ba muñ koy tudde sawara as siraatu baatub siraat boobu siraataani yaari woon la xissi yun wuñ mën a làmb daj wa maana wiyun ak ko jug max naa woo xam su ko làmb daj alxissi yu yoon wa jàkkaar lool woo moom almawduu mooy wa ñu tëral li ahli dunya ñeel ñuñ àdduna wal maanawiyu ko jug maxnaaka huwa moom almawduu mooy wa tëral li ahlil axirati ñeel waa alaxira wa man salaka ko yoon ñu gis fii ci àdduna salima kon mucc minal maanawiyi ci ko jug maxnaaka asiraat ne day fii aw yoon waaye yaar yoon la yoon wi yàlla rëdd fii ci àdduna bëgg ñu aw ci mooy yoon wi nga xam ne moom lañ mën a gis teg ca bët mu am nag beneen siraat boo xam ne mooy boobee yàlla yu tëral àllaaxira ku jëm àjjana mbaa nga jëm ci safaan ba ca ngay jaar door jàll ci kër ga nga jëm mu ne nag ku aw ci yoon wi nga xam ne moo nekk ci àdduna te jub xocc bañ koo wàcc boo demee àllaaxira itam daal aw ca yoon woowee jàll jàmm aw ca gaaw nu gaaw a gaaw daal mucc koo xam ne nag awoo ci yoon wi fii ci àdduna boo àggee foofee ci àllaaxira it doo mën aw ca yoon woowee kon siraat yaar la siraat bii nga xam ne moo nekk ci àdduna te mooy wone yàlla xàll bëgg mbindee fi aw ci ak siraat boobee nga xam ne moom lañu ñu dégg ca alaaxira ñu wax ne kenn ku ne na gëmam ak jëfam toll la cay gaawe mu ne nag kon ku aw ci yoon wi fii ci àdduna nu mu gën a rafete bu àggee ci àllaaxira it daldi aw ci yoon woowee na mu gën a gaawe mu gën rafete ku jàdd yoon wi fii ci àdduna nag bu àggee foofu itam doo mën aw ca yoon wa foofee siraata lazina an'amta alayhim siraata lazina mooy yoonu gaa nga xam ne an'amta xéewle nga alayhim ci ñoom ay wafiq naa yàlla na tawfiixal dafa def ma waaye daa mel ne mahahum ànd ak ñoom bi kamaalil imaani ci matu gëm kamaalil ambiyaa yi naka mu ñeele ñañu solo mu yonantee wal awliyaay ak waliya xayril maxduubi ñurul nañu mere alayhim ci ñoom ay li mu ci namu laa siraatal lazina du yoonu gaa nga xam ne xadibta mere nga alayhim ci ñoom kal yahoodi mel na yahood yi wa nasaara ak nasaraan yi wala daalina du caageemu way sànku ay wala zaahiliina du caageemu way gëlëm ña waxum ñoom xawmun aw nit lañu adallahum ñoo xam ne réeral na leen allahu yàlla an tariqil hidaayati wal si yoonu gindiko ila tariqi dalalati jëm ci yoonu cànkute al mu'tasila ci nekki kuréel bi tudd al mu'tasila wal jabriyati ak al jabriya wal qadariyati ak al mooy yàlla yoon wa ni sàkku di ko taamu mooy yoon wa nga awale woon yoonante yaag ñi leen gëmoon te dëggu ba ràññi ko ci dëggu ga ak wali yi nga xam ne ñoo wut yoonante yi yoon wala ni taamu nga awale ko te musul nu ci yoonu ña nga mere ak ña sànku ñi yàlla mere mooy ñu xam yoon ba noppi bañ ca aw ki yahuud yi xam dëgg ba noppi nanguwuñ ko nasaraan itam ca bu njëkk dañ daan sonn te xamuñu yoon wa sànku waaye léegi nag moom ñoo yahuudi ñoo yemoo xam nañ yoon wi dëgg-dëgg te mooy yoon lislaam dañ cee gàntoo aw rek moo tax kon ci léegi si dañ daal di bokk ak yahuudi yi ci xam dëgg te gàntu ko daal di bokk ci ñu yàlla mere kon yàlla musul nu ci yoonu yahuud ak nasaraan musul nu sax ci yoonu ñi nga xam ne dañu ne ñu ngi ci biir lislaam waaye nag dañoo sànku awuñu ci fawante bi awoon ak saxaaba yaag gaa yu baax ya topp seeni xalaat am nañ gise topp xalaati biddaa yeeg yu mel noonu te muy école yu baree bari ñoo ñëpp musal na ci la leen dal yàlla na nga nu may rek nu aw ci fa bi awoon ak saxaaba yaag gaa yu baax ya dañ ko wàcc mukk mukk ba ak si ci yow ànd sa ngërëm loolu mooy maxnaam fatiha waalam xamal ne ànnal fatihata naka fatiha mustamilatun aji làmboo la xalaa saairil xoroofi ci mboolem araf yi maa xadaa sabxata ahrufin ndare juróom-ñaari araf man xootat ñu ci tomb waxee ñoom mooy aljiimu walxaau wazaayu wattaau walzaau walfaau wachiinu wa innama muniha naka tereef na min ityaaniha seenu dikkee fiiha ci fatiha li annahum ngir naka ñoom nasaloo wàcc nañu bil wax yi di akub tëkku waxoo moom nag asharu mooy ay wa innama muniha naka tereef na min ityaaniha seenu dikkee fiiha ci fatiha li annahum ngir naka ñoom nasaloo wàcc nañu bil wax yi di akub tëkku waxoo moom nag asharu mooy ay dafa def nag li annahum nazaloo mel ne araf yi dañoo doon jëm yu xellu fekk li annaha nazalat bil waidi wa huwa sharu mooy zahir si wa maanal jiimi maanaam jiim maaxuusun luñ jàppe la min at tajassi ci at tajassi bii fi di ak sukk waxoo moom as suqootu mooy rot ala rukk sawara bi xawlihi taala wa nadaru te dana nu bàyyi alzaalimiina way tooñ ña fiihaa ci sawara jasiyan ñi way sukk ak seeni batiwam ay saaqitiina ñi ci sawara wa daabitul faatihati aji takk faatiha wa maaniha ak ay maxnaam laa yasqutu du rot ala rukbatayhi ci ñaari bëti moom finnaari ci sawara dane fatiha araf yi nekk ci arafi abajada yépp nekk na ci ba des juróom araf yoo xam ne wu ci nekk am na tomb muy jiim ak xaa bi wax xaalonk ak zaay ko wax razayin ak ñu koy wax coon ak waa ñu koy wax tàddara bu tooy ak faa ak siin su tooy juróom yaar yi amu ci kenn koo xam ne ñëw nga ci fatiha li tax nag nee na yàlla andiwul juróom yaari araf yi ci fatiha arafu ci nekk daa am maanaam moom làmboo moo xam ne ab tëkku la te ku mën fatiha di ko jàng ni ko war a jànge xamitam ay maxnaam moom fatiha daal di mucc ci xeeti tëkk yooyu ak xeeti ay yooyu ak xeeti alkande yooyu nga xam ne moom la juróom-ñaari araf yi làmboo mu tàmbalee ci jiim jiim daa ay maxnaam attaja si sukk ci sawara su boroom daa wax ne ñëppay jéggi siraat te siraat ñu ngi ko tiimale sawara su ko defee nag ña gëmoon yàlla lay bàyyi ñu jàll ci jàmm ña weddi nag mu bàyyi leen ñu sukk ca sawara wa ñu sukk seeni bëti ca sawara kon jiim gi daay maxnaam attajas si sukk ak bëti ca sawara ku man faatiha nag ci li ñu jàng ay arafam xam maanaam fatiha daal di mucc ci loolu wa ma anal xaa yi maanaam xaa maqudun luñ jàppe la minal xaybati ci xaybati bi fi di tasu yaakaar li xawlihi taala waxad xaaba sooy na man ka nga xam ne dasaaha ruur na bakkan ba ci ay moy ruur na ko ci ay moy mooy xaabat sooy na wa xasirat te perte nafsun bakkan afdaha bu gàcceel na ko allahu yàlla xaal te mooy xaalonku daal maxnaam alxaybatu bi firi sooy tasu yaakaar ñàkk am lu baax perte ni ko alxuraan waxee ne waxad xaaba man dassaaha kuruur ba kanam ci ay moy ci kéefër ak jàdd yàlla kookaa sooy kookaa tas yaakaar bu ëllëgee mooy torox mooy rus mu ne nag waddaabatul fatihati aji takk fatiha wa maaniha ak ay maanaam laa tusiibuhu du ko jot xaybatun tasku yaakaar fil axirati ci alaxira ku mën arafi fatiha xam la muy tekki nag muy maxnaama bu ëllëgee ci àllaaxira loolu ñu wax tasug yaakaar sooy du la dal wa maana zaay maanaam zaay maxuudun luñ jàppe la min zalzalatil qalbi ci rëng-rëngi xol li xawli taxala wa zulsiloo te yëngaleef leen zilzaalan ak yëngal shadiidan

nga xam ne yow mucc nga doo fa am jaaxal wa ma ana taa yi maanaam taa ma xootum luñ jàppe la mina tubóori ci alkande waxuwa moom alwaylu mooy toskare li ànd ahlan naari ngir naka ñooñu sawara isa xaayanoo ndem jàkkaarloo nañoog isa xaayanu ndem jàkkaarloo nañoog alxasaabu mbugal ga rafaxoo ñu yëkkati aswaatahum seeni kàddu bi looy ci woy toskare ci wax naa woy toskare yu naa doona danañu wote naa yaa woy laahum woy seen toskare ngalawoo nun sun toskare li li xawlihi taala laa tadduxoo bu leen woo al yawma tey jii zuburan toskare mba alkande waahidan su di senn wadduxoo woo leen tuburan alkande mbaa toskare kasiran su di aji bari li wax cuun ñu koy wax tombañ ñëwul ci araf yi fatiha li ko waral mooy daa mi maxnaam toskare alku bay wax naa ngelawoo man fu jëm suñ boroom nee na ñëwee woon yàlla bu ëllëgee buñ taxawee bis penc dañuy toskare alku di wax naa ay lin dal fu jëm nun ay suñ toskare li ñu ne leen leen wax benn toskare wax leen ay toskare toskare yu bare bari wa daabitul fatihati aji takk nag fatiha wa maaniha ak ay maanaam laa yusibuhu du ko jot tuboorun alkande fil axirati ci alaxira li tax nag arafu tomba ñëwowu ko wax cuun ñëwul ci fatiha mooy ku mën arafi fatiha xam maanaam yi muy tekki bu ëllëgee ci àlaxira doo fa gis toskare mbaalu ko nuru wa maana waa yi maanaam waa maqudun luñ jàppe la mina zulmi ci ak zulmi bi fi di tooñ li xawal yi taxalaa wala tasit te dolli azzaalimiina way tooñ ña illaa tabaaran ndare alkande ay halaakan alkande wa daabitul te aji takk faatiha wa maaniha ak ay maanaam laa yusiibuhu du ko jot halaakun alkande fil aaxirati ci alaaxira tàddaroo bu tooy am na ci baatub ak zulmu bi firi ak tooñ te boo demee ci suuratu nooxin ñu yàlla ebaloon noox dañoo sëgg ci weddi ba yàlla xamal noox ne ko ñii lu yàgg yàgg duñu gëm noox daal wax yàlla ne ko kon nag alag leen te bu leen yokk lu may alkande ñu ne nag ku mën arafi fatiha xam li muy tekki da nga mucc ci tooñ sa bopp ci weddeeg mooy bay alku bu ëllëgee ci àlaxira ku man arafi fatiha man maxnaam rek mucc nga ci loolu moo tax tàddaroo bu tooy amul ci arafi fatiha wa maanal faa yi maxnaam faa ma ruubul nuñ jàppe minal firaaru ci daw li xawli yi taxaala falam yasidhum te dolliwu leen duwaa yee sama woote illaa firaaran ndare ak daw wa daabitul fatihati aju takk fatiha wa aniha ak i maxanaam laa yus yu buhoo du ko jot firaarun daw fil axirati ci alaxira alfaawu arax la xam ne am na tomb waaye ñëwul ci biir fatiha ndax alfaawu day dugg ci baatub alfiraaru bi fi ak daw li tax nag faamoo mu ñëwut ci fatiha mooy ku mën arafi fatiha xam la muy tekki boo taxawee ci àllaaxira doo daw jëm fenn ndax dangay xam ne rek mucc nga dañu lay gunge yóbbu àjjana waaye doo fa jekk di daw loolu moo tax arafu faa amul xaala wax na baaduhum lenn ci ñoom ne wa maanal xaa yi maxnaam xaa mi xaalonk ma qoodun luñ jàppe la minal xawdi bàyyikoo ci al xawdi bi firi ak xuus fil xusraan ci perte li xawli yi taxala wal giñ naa ci jamono mbaa giñ ci takku sànne inal insaana naka nit xeetu nit wépp la xusrin nekk nañ ci perte ay inal kaafira naka aji weddi ja xusraanin nekk na ci ak perte azimin guy aji rëy weesu woon arafu xaa ne woon baatub xaalonku ñëw na ci alxaybatu bi firi tasum yaakaar ñu koy wax sooy ne kuy giiroo te mu ne am na ñu ne baatub xaalonku boobu dana ñëw ci alxawdu bi firi xuus xuus te kon dañ caa jublu la suñu boroom ne xeet doomi aadama yépp ñi ngi xuus ci perte ba mu des nag ña gëm te taxaw ci la gëm nga laaj ñu ne kon ku mën arafi fatiha xam maxnaama yàlla musal la ci xuus ci perte yàlla may la nga sax ci gëm ak la nga laaj ba bu ëllëgee ca àllaaxira doo fa gis lu nuroo ko moo tax mu teg ci wa daabitul fatihati aji takk fatiha wa maaniha ak i maxnaam laa yusibuhu du ko jot xusraanun perte fil axirati ci alaxira wa maana chiini maxnaam chiin su tooy maqudun luñ jàppe la min charari naari ci ferñeenti sawara di xawli taxala kar mi dana sànni moom sawara bi chararin ci ay ferñeent kal xasr yi daa waxoon ne siw su amul ci araf yi fatiha la tax amu nag mooy siw su daa ñëw ci baatub asharaba bi firi ay ferñeent dañ bëgg wax ne ku man fatiha dëgg-dëgg xam araf ya xam itam maxnaama bu àllaaxira ferñeent sawara du la jege moo tax mu teg ci wadaabitul fatihati takk fatiha wa ma aniha ak i maanaam laa yusibuhu du ko jot chararun ferñeent fil axirati ci alaxira faidatu li njëriñ la wa dukiratu def na a gisee ko fil ci ay nelaw faqiilata waxees lahoo ñeel ko maa faxala lan la def allahu yàlla bi ko ci yow faqaala mu ne xafara jéggal na lii ñeel ma faqilata waxees loxo ñeel ko bi ma za ana ci lan la la jéggale xaala mu ne bi xam si kalimaat ni ci juróomi baat kunt yoo xam nekkoon naa usal yi di jullee bihin na ci ñoom ala nabi ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxees loxo ñeel ko wama xun na ana luy ñoom xaala mu ne kuntu nekkoon naa aqul di wax ne allahumma salli ala muhammadin bi adadi man salla alayhi wa salli ala muhammadin bi adadi man lam yusalli alayhi wa salli ala muhammadin kama amartana bi salaati alayhi wa salli ala muhammadin kama tuhibbu an yusalla alayhi wa salli ala muhammadin kama tambaxi asalaatu alayhi mu ne lii beneen njariñ la al imaamu Shaafihi bi mu génnee àdduna dañ koo gént gis ci ay nelaw laaj ko ne ko waaw noo def ak sa boroom mu ne jéggal na ma ñu ne ko ci lum la jéggale mu ne juróomi baat yoo xam ne daa ko daan wax di ci julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa ñu ne ko waaw baat yum doon mu ne dama daa ñu ko tudd rek juróomi baat waaye dañoo jublu juróomi dog juróomi wax yin ndax allahuma salli ala muhammadin bi adadi man salla alayhi benn la wa salli ala muhammadin bi adadi man lam yu salli alayhi muy ñaar wa salli ala muhammadin kama amartana bi salaati alayhi muy ñett wa salli ala muhammadin kama tuxibu an yusalla alayhi muy ñeent wa salli ala muhammadin kama tambaxi asalaatu alayhi muy juróom wa fil xabari nekk na ci xabar man kaana ku nekkoon xalaa wirdin ci wird min salaatin ci julli aw sawmin wala koor fa mën a axoo te tere ko min hu ci moom maradun tawat aw haramun wala màggat aw safarun wala tukki kaana kon nekk dafa ñeel ko al ajru yool ba taa man di aji mat axrajahu génne na ko at tabaraaniyu fil kabir min xadis abi zarin ci xadis abi zar wal xaakim ak alxaakim wa saxaxahu ko ibnu xibbaan mu ne xadis ba nee na ku amoon lu baax loo daan def muy julli muy woor nga dem nag ba tawat tee nga def ko mbaa ak màggat tee nga di ko def mbaa tukki tax defoo ko du te yàlla bindal la tuyaaba ja mel ne def nga ko ne loolu ak tabaraan yi andi na ko muy addis bu Abu Zar nettali Ibnu Hibbaan ba tey nee addis boobu bu wér la faidatun qawluhu taala wala tamuddanna aynayka ila ma matta ana bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya li naftinahu fii wa risqu rabbika xayrun wa abqa wa amur ahlaka bisalaati wastabir alayha laa nasaluka risqa naxnu narzuquka wal aqibatu li xaasiyatu hadihi l ayati jagleg mooy ànd mën na ko koo xam ne katabaxaa bind na ko wa àllaqaxaa te mu takk ko àll ci boppam in kaana bu nekkee xaasiban di aj ñàkk soxna tazawaja mu takk maanaam mu am soxna wa in kaana bu nekkee katiran nisyaani di aj barik fàtte fa innahu naka moom laa yenn saa du wa in kaana dem nekkoon na maridan di aji tawat bari amu wér wa in kaana dem nekkoon na faqiran di aj ñàkk istaxnaa mu woomal laay wala tamut dànn ay nay ka ba ci wala axibatu li taqwa la wax ne nee nañu am na jagle gu réy réy gu ci yàlla def mooy ku ko bind takk ko su fekkee amoon soxna te bëgg soxna da nga ko daal di am su fekkee da ngaa bari woon looy fàtte doo fàtteeti bu fekkee da ngaa tawatoon da nga daal di wér bu fekkee da ngaa ñàkkoon danga nga daal di am faidatun lii beneen njariñ la xijaabu maarisin xijaabu maaris waxoo moom an taqula moo di nga wax bismillahi irrahmani irrahimi mi ata marratin téeméeri yoon wa subhanallahi alazimi bismillahi allazi la yadurru ma hasmihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim mi ata marratin ba tey téeméeri yoon wala hawla wala quwata illa billahi alin azim moom it wax ko mi ata marratin téeméeri yoon wal fatihata fatiha it sabaxa marratin juróom-yaari yoon wa inna anzalnaahu ak inna anzalnaahu ihda benn wa ashrina ak ñaar fukk ci ay yoon allahuma salli ala sayidina muhammadin annabiyil ummi mi ata marratin téeméeri yoon wal baqiyaatu saalihaatu ak al baqiyaatu saalihaat arbaxa marratin yent yoon ni am na lu ñu tudde xijaabu maaris li ñu koy defe mooy ngay wax bismillahi rahmaani rahim téeméeri yoon def subhanallahi alazim bismillahi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi sama wa huwa samin halim moom yoon teg wala xawla wala quwata illa billahi alil azim moom yoon jàng fatiha teg ca juróom-ñaari yoon teg ca inna ansalnaahu ñaar fukki yoon benn teg ca allahumma salli ala sayyidina muhammadin annabil ummi yi téeméeri yoon mujj nag albaqiyaatu saalihaatu ñeenti yoon mooy subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi alil azim ñeenti yoon loolu ñu tuddee xijaabu maaris faidatun lii benn njariñ la xijaabul xamli kaaraangel ëmb ida balaxa ndem jot na alxamlu ëmb ba talaasata ashurin yetti weer faqra jàngal xalaa batni ummihi ci biirub yaayam abdullah ibna omar abdullah ibna mas'ud abdallah ibn zubayri abdallah ibn salaam abdallah ibn zaydin abdallah ibn ummi maktuum radiallahu anhum ajmain yakoonu kon dana nekk zalikal waladu joojee doom zakaran di góor wa yakoonu te kon dana nekk aaliman di aji xam wala tamassuhu te du ko laal annaaru sawara bi idnillahi taala day tàmbalee wax nag bu jigéen tolloo ci ab diggante yëg ne ëmb na xeeti kaaraange yi nga xam ne mënees na ko caa def ak xeeti ñaan yi nga xam ne mënees na ko caa bi mu ci njëkk wax nag mooy bu yëgee ne jigéen ji toll na diggante te am na yetti weer mu fexe ba jàng turi gaa yu baax yi nga xam ne ñëpp Abdullahi leen tudd mu fexe ba jàng seen tur def li ko ca biirut jigéen joojee ëmb kon bu amee doom góor lay doon te boroom xam-xam lay doon te du dem mukk sawara ñoom ñëpp Abdullahi leen tudd dàkkintal yi rek moo wute ku njëkk ki abdullah ibnu omar la ku ñaaral ki abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu zubayr muy ñetteel bi abdullah ibnu salaam abdullah ibnu zayd abdullah ibnu ummi maktum wa jawaabi cheikhina al kabir sidiya ibnu muxtaar nekk na ci tontam maa loo xam ne lafzuhu baatam mooy wa mimma ci li nga xam ne yustaamal def na ko jëfandikoo li islaahil hamli ngir defar ab ëmb ida balax bu jotee shahrini yaari aw aqalla mbaalu ko yées bi ci lu néew aw aksara mbaalu ko ëpp ci lu néew qawluhu taala wallati ahsanat farjaha fa nafaxna fiha min ruuxina wa wa banaha ayatun lil alamin inna hadhihi ummatukum ummatan wahida rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum baynahum kullun ilayna raji'un fa iza kutibat ndem bindeef na hadhihi al ayatu bi lillaaya ko xalal xaamili fi awwali muddatil xamli ci njëlbeen diiru ambu muddata arbaxina diirub ñeent fukk yow man ci fan summa toal la ko topp def na ko takk ala sab yi ca gone ga isa wulida dem juwéef na ko fa inna zalika naka loolee yàkkun dana nekk xifdan di ak wattu dig sàmm lil xaamil ñel aji ëmb ja xaamili wa am nan tey ndimbal xalaa wilaadatiha ci ak juróom wa xifdan te di ak sàmm di ak wattu lil wala di ñeel gone ga waxaw nan tey ndimbal xalaa najaat yi ci muccam bi it ñu laa ci nameelu yàlla ba tey njariñ lii mi ngi aju ci bu jigéen tolloo diggante lañ koy defal ni Cheikh Sidi mu mag ma nee woon bu jigéen ambee ba toll ci yaari weer mbaa la ko manqué yaari weer bëriwut mbaalam ko ëppee bëriwut xam ne foofu rek lay toll kon suñ bindee di tàmbalee wallati ahsanat farjaha jooju ba ci kunuñ ileena raajihoon daal di ko koy takkal bu ko takkee ñeent fukki fan rek baax na bu ko neexee takk ko yooyu waaye bu ko takkee ñeent fukki fan rek baax na bu ko neexee tekki su amee doom nag ñu takkal ko doom ja loolu li nee na bu ko defee jigéen ja tollu diggante yàlla dana ko aar sàmm ko tamit bu tolloo ci am doom am doom nga jàppandi bu doom juddoo itam yàllaa koy sàmmal doom ja yàllaa koy aar doom ja ba mucc maanaam ba doom ja dara du ko dal incha wa fiihi aydan mimma bokk na ci la nga xam ne yaxfazu dana wattu alxaamila aji ëmb ja min isqaatil janini ci rotal ndóomur ma qawluhu taala wa labitu fi kahfihim talaasa miatin sinina wasdaadu tisaa qulillahu aclamu bima labitu lahu xaybu samawaati wal ard tukk tabu def na bind xaadihil ayaatu te dee fi ko takk alayha ci moom ka ëmb taxfasu kon dana ko wattu minal isqaati ca rotal ëmb ba bi isnillah ne ba tey Cheikh Siidi mag ma nee na woon buñ bëggee jigéen ji ëmb ëmb ba du yàqu li ki juddu te waragut a juddu dañ koy bindal wala bisoo fii kahfihim ba ci lahu xaybu samawaati wal ard mu daal koy takk loolu bu ko defee rek ëmb ba dara du ca sikk ki jàng nag mu seetlu ne ba mu wax la tàmbalee ci wallati ahsanat farjaha waxu téere bi dafa tudde loolu benn laaya ne fa ida kutibat haadihil ayatu te fekk na loolu ñetti laaya la bi nu agsee nag fii nga xam ne moo tàmbalee ci wala bisoo fii kahfihim talaasa mi atin sinina ba ci wal bu samawaati ardu mu ne tukkata bu haadihil ayatu daal koy def ay laaye laaya te fekk na moom mëtul sax ñaar kon ki jàng mu seetluwaale rek ni mbind mi ñëw foofu ne moom du soppi dara ci maxnaa mi du ko yàqal dara ci lim bëgg a jëriñoo wa fihi aydan an nasbahu naka turam wa ashadiidu ashadiidu ida kutiba ndéem bindeef na ko fi murabbahin ci xaatim bu kaare xarfihim di ko ju araf xalaa tariqi taksiri ci yoonu dammate maanaam teqale araf yi fii saqfin ci am teeg waa ulliqa te takkeef ko alal marati ci jigéen ja allati ja nga xam ne tasqutu te daaroot awlaaduha ay doomam fa innaha naka moom jigéen joojee laa tusqitu du rotalati jën yi na xaa ma maadaama fi sax na maxa ànd ak moom bi idnillah wa suuratul murabbaxi te melaw xaatim bu kaare ba almadkoori ba buñ tudd mooy hakaza niki ni lay def hakaza niki ni lay mel ba tey nee na ci Cheikh Sidiya mu mag ma mu ne bu fekkee jigéen ji su tolloo rek diggante ëmb ba day farala yàqu mooy di juddu te fekk na matagut dañ ko bindal xaatim bi nga xam ne dafa kaare mooy xaatim bi day def yenti kër te turu yàlla wi nga xam ne mooy ashadidu yeenti araf la kon nañu def yeenti kër ci kaw tegaat ci yeenti kër tegaat ci yeenti kër tegaat ci yeenti kër bu dee ku miin xaatim bu dégg ñu tudd murabbahu xaatim bu ñu kaare rek dana daal di xam na mu tëddee su fekkee ne miinul xaatim itam bu téere bi gis rek nañu xaatime xaatim ba ak nañ cey bindi araf yi